wax nga sànq tamit ne yow dañuy bind jox la nga way donc xalaat yi rafet yi ma gis yi xalaat yi rafet yi ma gis yi quoi <laughs> donc parce que gis naa toog si xam ma sonal xam nga Sénégal donc xarit ah, waajur ok mhm. ok C'est euh, à c'est les idées à toi. moi qui a composé et a chanté et les musiciens ont ok ok Sénégal pourquoi le tamou Sénégal Sénégal en fait. déjà euh, pour commencer Sénégal. Mhm. déjà Sénégal mhm. mhm. texte euh, parce que morceau Michael Jackson la. ma def en en en. Ah, ah, ok ah, effectivement uh-huh. euh, je disais pourquoi pas que euh, Michael Jackson mm-hmm. euh, nature effectivement donc moi nature bela c'est mm-hmm. donc di appels à que nous nature mm-hmm. Michael Jackson. effectivement bu ma choisir benen texte bo xamantene ne. Mhm. day day day day du nekk ci même contexte que Michael Jackson ni ko defee. donc mané pourquoi pas Sénégal bi nga xam mom la nek mhm. ma def ko. Euh,

yaa may tooñ. Ah. lii commencement la rek. Mm. lii lii commencement la rek. ok bu ko def nii rek pour pour retour bi rek. da nga da a feebar ñu ngi fi. ñu ngi fi quoi ñu génn incha allah. lii dama amoon choix sax pour génne ko parce que dama amoon am na ay son yu bëri yoo xam ne. dama ko mhm. defoon donc euh, dañ ne puisque. six la ñuy def pour album bi. nañ mhm. choisir li may yooyu yëpp gars dañ ko déglu gis ne lépp a nice. effectivement ñu choisir ok kon rien à dire ah. man na xam nga man moom euh, <laughs> damaa moon wax comme di sama copain di wax dama damaa gëj a wax jeudi ba ba tey waxuma xam nga foog mooy foog may wax mais sama put bi daa wow jox ma ma naan boobu. ah jox ma ma naan waay. jox ma ma naan la doon tanaan jox ma ma sama put bee wow. wax kese laay def weex ko ma naan ma bàyyi ma naan nag. Hmm. no damay damay naan teg ñu dem xool euh, xam nga xam nga xam nga clé USB. xam nga léegi damay naan ma sànni ko comme ça mu taataan ak ñu si mbedd bi su ñëwee après ñu teg ko si ordinateur bi nga jàngat ko. tontu ci ñu zito ñu ñu dem seeti clé USB ñëwaat ah. ça va soxna ça va bien merci. na nga def maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax moo tudd. Angèle laa tudd. Angèle foo dëkk. si Kambaaw. si Kambaaw naka si Kambaaw. ça va. xam nga Mirema. bu baax. Euh, soo gisoon Mirema ban question nga am pour poser ko. ban question la am pour poser ko. Mhm. si elle est amoureuse wala. Amadou Bari. Amadou Bari yow Guinéen nga. oui maa tuddee. c'est là. Eh. alors ada andi Mirema.

Moi, je suis amoureuse. Ah ah, ça, c'est certain. Mmh. Oui. Avec qui ah, Avec mon chéri. Hein. Euh. <laughs> dinañ ci ñëw mu dinañ ci ñëw mu gën a yaatu dinañ ci ñëw mu gën a yaatu parce que dinañ ci ñëw mu gën a yaatu ok euh, deuxième question dinañ ci ñëwaat nii deuxième li ma leen wax doy doy leen wuyu ma deuxième question bi après dinañ ci ñëw mu gën a yaatu hmm. bon waa ji nee na ba xam euh, est-ce que yow est-ce que waa ji nee na est-ce que yow da nga gëm nga musique bi quoi gëm nga musique bi

man de xëy na bokkuma ci te pour vous ah, waa ji sa fans dafa ne ma man ma dama koy bëggee ah dama ko bëgg. moo tax mooy dama koy poser ah, question. ah fans bu laajte lu mu laajte noonu am na solo ah, pour c' xam nga xam nga fans souvent dañuy bëgg di xam seen seen artiste lu mu nekk et tout ça. mu bëgg xam bas ba xam est ce que Mirma nekkul rek day ñëw après dem. dama ko gëm bu baax. Mhm. dama ko gëm ma tagal ma tagal ma sama. musique sama ma sama jus. te gëm naa sama profession. Mhm. donc ku bëgg a gis donc vous nga dem ci Facebook. ah di di balancer tout le temps. ay mhm. affaire fofu dina fa def sama événement mhm. mais vous nga wax tamit que euh, soirée comme ni ko Yanké, Yanké, koy di ko koy di ko si la ñu mhm. tamit ko page. Facebook page Facebook quoi donc ñu gis ñu gis album bi ah nañ tamit ñi ngi ci ngi donc ban parce que nañ fi batterie Jules ñu nekk ay grand quoi. donc album bi ku mel ni yow moom joué wu ko. oui waaw parce que parce que. album bi nag. Mhm. macha allah yàlla def na ne ay ngand rek ko joué. Mhm. ndax ku mel ni si mel ni ñoom Laylo. Mhm. si mel ni ñoom ji tonton Jimi Mbaye. ay ñoom Papis Konaté donc album ji euh, Bakane Seck. ñoom ñoom euh, Babou Laye donc ñu nekk sa album. donc album du ko gën a cher. dañoo waxante dëgg ay ay ay ay musiciens yu mag. ñoo nekk sa album bi. ok Mhm. donc yow ban comprise nga am parce que ah, gis nañ gis nañ gis nañ tamit ah, London Music moko produire hein non en fait London Music uh-huh. produire album bi London Music. Uh-huh. Euh, duplication bi nga donc moom moo koy def tamit distribution yi. Mhm. London Music mo def distribution yi. mo mhm. def duplication mais Planet Prod ñoko def. ok le sens moom moo produire album bi. London Music c'est juste juste dañoo def duplication CD. après def distribution bi. ok donc euh, Sénégal bien Sénégal bi dama bëgg dama bëgg dama bëgg ñu sétane ko. ñu seetaan ñu seetaan ah, Sénégal ñu ñu seetaan ñu seetaan Sénégal donc après bu ñu ñëwee mu décortiquer ñu tuuti. réalisation vidéo bi seetaan ci biir Sénégal TV. bon seetaan nga seetaan nga vidéo bi. est-ce que mën nga ñu mën nga mën nga ñu wax ci vidéo bi réalisation bi. kër réalisation bi ñoom Pape Dijé ñoo ko def. Pape mhm. Dijé ku ko xam xam ne day réalisation yu rafet lay def. Mhm. Euh, tamit boo gisee ñi ko ci aussi. Mhm. Euh, vraiment def nañ ci fer fecc bu originalité. Mhm. bu am originalité. Mhm. Euh, dans pop lañu bolé pop ak moderne. effectivement moom la ñu boole jaxase ko. xam nga so gisee sank mo nga doon expliquer mo tax ma doon wax né ban style musical ngay parce que so sédo tamit bien da ngay gis da ngay da ngay gis pop da ngay gis mbalax bi da ngay gis. ah da ngay gis uh-huh. R&B bi mhm. lépp ngay dégg ci biir. Euh, c'est parce que euh, xam nga jamono day dox. te jëno né nañ jamono buy dox da ngay and ak moom di dox. donc dañu tok dañu tollu ci ci ci ci monde boobu. Mhm. nekk nii. Mhm. donc dañuy recherche rek. Mhm. dañuy recherche rek. mais mbir ma am nga xaalis. Ah, non, ah, non, non, non, non am nga non, parce que ben, ben, ben compte ben album je album ah, mon chargé de quoi encore. mon chargé de qui vient me donner mes. dang may may may may dang ma dang ma bëgg man dama dama non chèque pour mhm. toi. ak mhm. pour le caméraman. ak mhm. système bi ñu aussi. non parce que parce que xam nga parce que dañu gis. dañu gis dañu gis dañu album enfin ah donc ñu gis si ñaari vidéo ñu gis si ñaari vidéo donc Rab moo nekk si ginnaaw mbir maa kon <laughs> Rab moo nekk si ginnaaw dama am producteur mhm. dama am producteur donc moom moo produit album bi mhm. euh, moo produit moo def tamit clip bi yëpp ndax boo amee producteurs c'est ça c'est évident mhm. foo mu def foo mu génnee la album bi donc loolu la ñu signé maa ak moom effectivement foo vidéo ici moom moo koy def effectivement man du si dara dafa am ñu nekk derrière rek ñu may jàppale évolution wane sa bopp. wane waaw wane sa bopp comme comme renoo ah. ok euh, benn bi bu njëkk mooy tey bu fekkoon ne yow bëgg nga changer si sa bopp dara. Mhm. la lay nekk. dara. tu es fier ci ni nga nekk nii. ok dara. ok ok ok. <laughs> je change rien moi. ah. mami ni ñuy changer fii ah gis nga lu ñu war a changer fii. non nice ah, bon je ne sais pour man ah pour man pour man pour ah, man. vraiment bëgg nga jël si tànk bi si kaw xool ba xam man war naa mën a am lu ma changer fii. eh wuy ma ah. wuy ma. yéen ñi seetaan Sénégal TV yéen ñiy seetaan Sénégal TV <laughs> après ngeen wax mûrement ndax war na changer wala warul changer yow kan nga bëgg kan nga bëgg a doon kan bëgg a mel. nga bëgg ban jigéen. Euh, am naa ñu ay jigéen yoo xamante euh, neex nañ ma. Mhm. pour mel ne moom. moi je préfère ni nga mel déjà ba pare.

y mhm. de couleur mais j'aime bien dama noir. Mhm. à part noir je ma couleur mais dama bëgg noir. mais yow da nga ñuul de noir. noir yooyu du ñu bàyyi de. moo tax noir. noir noir. xam nga xam nga xam nga ñun Sénégal de noir bëri yo, <laughs> yo, bañ. kan noir sa chanteur préféré. Youssou Ndour je je pas. pourquoi Youssou Ndour pourquoi Youssou Ndour. pourquoi ah. Youssou

je l'aimais beaucoup et je l'aime encore je ah l'aime encore. moom rek la don topando ay ay wayam. ci ci jigen ci jigen ñi. moom rek laa doon wayantu ay wayam. Mhm. Mhm. Mhm. lan moy sa occupation à part musique bi. toujours dañ may wax lool man say bu ma xëyee di dox ci musique bi lay dox mosuma jël ben jour ma tok à part. Euh, à part ma ñeu fi def sama ongles à part ma dem fi defar sama bop à part euh, j'aime bien dem ci plage et tout mais chaque jour ça yi mu waxee. ci ci lui lui luy là c'est mon musique de laay dox. bëri lan moo nga gën a neex ci sa ci sa ci sa carrière. li ma gën a neex ah. mooy euh, bon sama sorti album. Mhm. bon na tamit li ma gën a neex. parce que mhm. dama ko doon xaar quoi. dama mm-hmm. ko doon xaar vraiment te dama si don ñafe mm-hmm. di ko liggéey pour mu génn mm-hmm. donc sama soppi album bokk na si lu ma lu ma gën a neex sama carrière mooy mooy mooy ah, mooy bien enfin quoi enfin génn na quoi <laughs> ok sa sa carrière waaw ba nga commencé dugg ci musique bi donc ba fini nii loo xam ne donc def nañu ko te mënoon na ñàkk te mënoon na ñàkk waaw mosoon naa yi benn scène artiste bu mag euh, ñu fekk ma ci kaw scène bi wàccee ma waaw loolu na si li ma métti. métti woon na la quoi waaw métti ma. ma ne jàll ci ne pleure ne ma alcool ma miir maam mouchoir mu kii euh, bu ko daaxati waay ah xale maa gën de mais est-ce que est-ce yow tey di ko def nga teg concert comme yow léegi fu mu nekk nii artiste bu bu mag nga parce que renommée nationale ah bientôt internationale ñu ngi koy souhaité donc est-ce que yaa ngi xalaat que un jour

Mirma ku mën a rëgal la xam ngeen fu ma jëm. Mirma ba ci ba ci kaw palaafoo yi ah. Mirma ban ban togg nga gën a mën. yëpp laay togg. man yëpp laa mën togg. mais ban moo la ci gën a. ban laa ci gën a mën. Mhm. question difficile. supp kànja voilà supp kànja man sama supp kànja loo xamul duma ko ñulug de <laughs> mhm. dama koy rosi baa joo métti nga. kii moo garaaw. ah du ma yow may dundal kañ nga may invité ma ñëw añ ci surtout Kanje. <laughs> wax fii wax ko fii mu leer wax ko fii mu leer. dama koy russi. kañ nga may invité. boo bëggee man maa ne invité. ñaata xarit nga am. xarit. Mhm. Euh, dama bëri ay xarit nag. Mhm. bëri naa xarit. Mhm. Euh, question bi ah, sa bopp sa bopp. dama bëri ay xarit. mais mais yow li mu doo wax ñeneen ñi daa mel ni waaw. xarit la rek yow sama gaayam nga ah, sama xarit waaw xarit xam nga c'est un vague. non sa xarit non waxuma la non attends attends <laughs> waxuma la say àndandoo ñi ngay àndal sa xarit sa boo xam ne yow kenn nga.